Modou Mbaye nuyu naa. loolu dara. eh papa Bécaye. Eh. maa lay ziar. maa lay bëggee. maa la bëggee moo frère. ci loone sant yàlla rek. tey nga gis ñaari xale di bëre. ñu nekk ñaari xale yoo xam te làmb dina la bàyyi xel ñoom ñaar ku ci nekk làmb ji mën na laa yóbbu fu ne naka nga gisee ñaari xale. waaw làmb la bu neex. dañuy félicité promoteur bi ñu fi woo Dieye production di félicité Abdoulaye Ndiaye ci liggéeyam bu rafet ci làmb boo xoolee ne làmb ji mel nga xam ni ay xale la yu làmb jox parce que boo xoolee amateurs yi ñëw nañu supporters yi ñëw nañu wuy si combat la boo xamante ne dafa mbër dafa am ci lu mu jugee dafa bëri combat mu mujj digganteem ak euh, Ada Fass Ada Fass daan ko Liss Ndiago gis ci lu mu jugee ci digganteem ak Boy Rëbës moo daan caatu Rëbës muy combat boo xamante ne ni ñoom ñaar dañoo war a daje pour kenn ki bàyyi fi keneen ki dafa mbër dafa war a leeral dafa war a rectifié ci li mu def ci digganteem ak euh, Ada Fass Liss war a confirmé wala ne damaa bokk ci classe muy combat bu neex combat boo xamante ne nii. ñu ngi leen di ñaanal ñoom ñaar que le meilleur kii di Tapha Mbeur naka la war a bëree tey pour mën cee génn. moo war a diriger combat bi moo war a def lépp pour daan parce que moom mooy mën nañu moom moo xaw may chance lis la mën a wax parce que ba pare moom moo juumoon moom mooy moom mooy jubbantiku te booy jubbantiku yaay diriger yaay def lépp pour daan Liss Ndiago moom it dafa wut si li mu wut si mooy lan digganteem ak Tapha Mbeur dafa am fu ko war a yóbbu day ñëw bëre bëre li mu am bëre si ñëw song Tapha Mbeur bëre ñoom ñaar ñëpp yaakaar naa ne tey dañuy daje mu nekk combat boo xam combat buy neex lay doon. kontaan naa ci merci kontaan naa ci yow moo